arrogance incompétence incohérence ci loolu rek lay waxee askan wi joxu leen cër wegu leen te dafa yàgg a ne réew mi di Senegal, da leen a war a noot ba nga xam ne ku wax mu jàpp tëj su mënul tëj boo waxee mu jàpp rey te ñaar yi mu ngi koy ci biir mi amul lenn lu mu ciy nëbb buy wax nag di ngeen ko waaye xaw ma nag ndax di ngeen ko dégg Macky Sall waxtu wi wax ak askanu Sénégal réewande gu mat sëkk lay waxee ak ñoom waxtu wi wax ak askanu senegal xamadi gu mat sëkk lay waxee ak ñoom waxtu wu ne moon leen ne yéen a ma fal waaye faalewu ma leen dinaa fi bàyyi seeni soxla nekk ci samay soxla te ku wax ma jàpp toroxal. Naby Vision. waaye askan woowu. dafa melni ba legui comprendre ñu li xew ndax ñom ñu ci ay korité ki tabaski nama ko waxé won rek ci ay gàmmoo ki magal ay xarit ak ay fet yu dul jeex faté nañ ne ëllëgu réew mi nekkul ci lu kenn xam Macky Sall waxtu wu xey suba ba ngon jot mu ngi wëyel di mandargal ak di jëmmal ne da wara a sax ci réewum Sénégal waaye askan woowu bàyyiwuñu sax xel ne Macky Sall dafa bëgg a falu buur ci réewum Sénégal ba tax na lam waxoon démb ak bërki démb ci la sukkandiku tey dëgër ci nag te gisul lenn lu ko ciy jëlee nee na faalewul yàlla faalewul yonent faalewul ay xalif généraux te faalewul ku yàlla bind ci mim réew ndax moom ci ay waxam nee na leen yàlla moo ko fi teg ca yàlla waaye nag réew moom bu fekkee askan wi dañuy déglu rek te duñu dégg mën nga leen a takk buum ci baat dëri leen jëmale leen fu la neex te duñu ci bàyyi xel. Naby Vision. Macky Sall waxtu wu xëyee mu ngi leen di wan ne yéen askanu Sénégal tekkiwu leen ñaari salaamaaleykum waxtu wu xëyee mu ngi fekk li ngeen gën a bëgg gën koo soxla muy seen liberté mu téye ko di ko dëggate te fas yéenoo leen jox benn yoon seen jël. waye ba tay yéen ngi rek japp ne dara xew ci dil national bi paa yi nga xamne ne seen bàmmeel moo leen gën a jege yi nga ragalu ñu yalla ragalu ñu yonent bi pa yi nga ragalu ñu déte ragalu ñu xalaatu ñu guddi gi ñëk ci biir bammel fen rek lañu nekké ci réew mi ak doomu jàmbur ak jàmbur yi ñoo demoon ci dialogue bi ngir ëllëgu ndaw ñi nga xamne buñu duñu lekk suñ maré duñu nan suñ feebaree duñu faju janguñu xeyñu gontuñu goruñu yettuñu ba paré ñoy dé ci méditerranée bi wayé ba tay dafa mel askan wo yeguñu li xew réew mi nak ku wax ngeen dafa réew réew mi ku wax ngeen dafa xamadi réew mi ku wax ngeen ci violence lay waxé waaye japp leen ne suñuy tontu tollu ne luddul seeni jëf ndax ku leen wax ne leen luddul ay doomeraam ngeen waxu leen lenn lu am réew mi da ngeen ko bëgg a yor ci ay caaxaan réew mi da ko bëgg yor ci sacrifier ëllëgu ndaw ñi waaye ndaw ñooñu bu fekkee nangu nañ ko bisimilah nañu continuer ci noonu. taal réew mi rek doomi xaraam la ku ñu war a jàpp la ku ñu war a dóor la ku ñu war a tàpp la. Sénégal ziar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay ma leen di ñaan ngir jëmmi Seydina Mouhamed ngeen partagé ma vidéo bi le maximum. ba mu àgg ci suñu maam Ahmed Khalifa Niass ndeysaan maam yàlla nga fi yàgg loolu te wér suñu maam Ahmed Khalifa Niass nee na ku mën a taal réew mi doome xaraam nga dañ laa war a jàpp dañ la war a dóor dañ laa war a tàpp. Naby Vision. waaye ñun askan wi wala bokk ndaw ñi mel ne man ñu am ay question ya nga xam ne dañ ko koy sampal moom suñu maam Ahmed Khalifa Niass. man nag du ma mës a wax ne doome xaraam la ndax bu boobaa dinaa tooñ doome xaraam yi ndax au moins doome xaraam yi ñoom xam nañ ne ñoom ay doome xaraam lañ waaye maam booy ñu lay laaj entre ñaar ñii kan lañ ci war a tàpp entre ñaar ñi kan lañ ci war a jàpp entre ñaar ñi kan lañ ci war a tëj ndaw ñi nga xam ne dañoo juddoo ci réew mu am lépp am petrole am gaz am zircon réew ma nga xam ne dañuy jàng ba am ay doctorat dem di dawal cag-cag réew moo xam ne ndaw ñi dañuy jàng ba am ay diplôme dem jël gaal yi ngir dem Europe ngir tekki ngir dimbali seen ay waajur ndaw yooyu nga xam ne dañ leen woowe ay tàlkatu réew ndax dañuy xeex seen àq ak seen yelleef ngir jële fi système ba nga xam ne moo fi nekk depuis 1960 te ay paa ya nga xam ne bàmmeel moo leen gën a jege rusuñoo bàyyi réew mi te rusuñoo wax dëgg ci réew mi entre ndaw ñooñu ak paa yi nga xam ne dañuy wër ci réew mi di màcculu ci ay xale yu ndaw ci ay appartement meublé ay paa ya nga xam ne dañuy jàkkarloog benn dictateur naan ko gëmmal dóor ay paa ya nga xam ni foo leen fekk ñu ngi wër ay ouragans contemporains ngir mën a féexal seen dund entre pas yooyu ak ndaw yi nga xam ne dañuy xeex ngir seen ëllëg kan lañ ci war a tàpp suñu maam sur ma leen ñaan ngir yàlla ngeen partagé ma vidéo bi le maximum ba mu yegg ci suñu maam ngir au moins mu mën ñoo tontu dañu bëgg ngir africain yi yow xam tamit ne bis bu peuple africain bi jugul jël seen destin en main danañ yàgg lool ci nooteel tey ay baadoolo yu mel na Macky Sall danañ continuer di wéyal di jiite suñu réew yi ba ilaa yow mi diine abadan waaye balaa ñu tàbbi ci vidéo bi dañuy dem ñu interroger toute histoire États-Unis première puissance mondiale seen budget de défense mu ngi toll ci sept cent soixante dix milliards de dollars am nañu doole de waaye seen premier président de la république George Washington ci jamono yi 1789 jàpp tey 2023 ñu ngi ci 46 président de la république ki ci mujj tey mooy Joe Biden. Naby Vision. waaye ku xam Amérique xam ne jiite nañ lu ne ci àdduna bi waaye ba suñu jonn yàllay tey ji musu leen faa dégg ministre bu fa détourner ay milliards ba suñu jamonoy tey jii nii musu leen a dégg doomu ministre wala doomu président bu fa détourner ay milliards waye tamit musu leen faa dégg jaboru président wala bu géwélu président bu détourné ay milliards buñu ñu fofu ñu tàbbi ci réewum France France gi nga xamné moy mooy dictateur yi nekk Afrique rawatina bir Sénégal France su ngeen bàyyee xel le premier président de la République mu tuddoon Louis Napoléon Bonaparte mom

Le président wala le président bu détourné ay milliards waye tamit musu ñu toll ci personnes te amul ben enquête buñ fa ibbi lan mo tax nak ma ñew di histoire ñun africains lan suñu problème wala ci pour ba ay baadoo la war tok ci suñu réew yi di ñu ci ay at yu exemple danaa leen limal ci lu toll ci ñetti réew yaa nga xam ne président ya fa nekk yaakaar naa ne nekkatuñu sax ay président waaye ay buur lañ bu ngeen demee tey fu mel ne Guinée équatoriale ku ñuy wax Théodore Obiang moom mu ngi toog ci nguur googu noonu dëpp ci lu toll ci 43 ans nga dem fële ci réewum Cameroun Paul Biya mu ngi fa toog depuis 40 waaye nga dem ci réewum Congo. Denis Sassou Nguesso mu ngi fa toog depuis trente huit ans waa sa waay ñii ce que ay président lañ wala ay buur lañ. Naby Vision. Macky Sall nag ci ñooñu lay inspiré wu tey ba tax mu yaakaar ni réew mii di réewum Sénégal mën na koo def moomeelu baayam ba toog fi ay at yu bari te kenn du wax. Sénégal wër àdduna ba àdduna daj réew yi nga xam ne ñu ëpp doole ci àdduna bi. mënuñu faa rey benn nit te du am enquête wër leen adduna ba adduna daj réew yi ëpp doole ci adduna bi du ngeen fa gis mukk ministre wala doomu président bu fa détourné ay milliards te jàpp ñu la tëj ci kaso bi waaye suñu réew yi nga xam ne créé wuñu dara lu xëy suba ba ngoon jot di def la promotion de la médiocrité ay ministre ay géwél ay fecckat ak dëggkat yu toog ci ay plateau télévision di xëy di fen suba ba ngoon jot di wax lu leen neex te dara du ci mujj am ay magistrat ay généraux ya nga xam ne dañoo ñàkk jom yaakaar na ñoom seen nguur gi dafa war a continuer ànd ak Macky Sall ba faw senegal dafa des nag ci ñun africains yi wala boog dafa des ci ñun sénégalais ñu xam ne am réew day doon am réew am justice ñëpp bokk ci kanamu yoon wala boog dootul doon am réew ñu bàyyi ko mu doon royaume buur ba fa nekk di dogal lu ko neex te kenn du ci mën dara réew mi di réewum Sénégal la ma leen waxoon laa leen di waxaat Macky Sall donnu ko ci ndey donnu ko ci baay réew mi di réewum Sénégal démocratie moo tax Macky Sall nekk fi président waaye buñ ko toppoon ci liggéeyi maamam rek du fi am birig parce que maamam wala ndayam ak baayam teguñu ci réew mi brique ba Sénégal toll fii li ma bëgg a waxaat nag mooy ay baadoo la faw fu ñu jiitee nguur rek faw gor yi sonn ndax gor yi lañuy ñuy jàpp di tëj ci kaso bi gor yi lañuy ñuy jàpp di exilé waaye gor yi tamit la ñuy jàpp di rey yaakaar na dara mënu leen cee fekk waaye li olof njaay di wax naan waxtu woo demee ba yaakaar na yaa yor doole ji yàlla dina la puus xamal ne la moom rek moo yeyoo doole Macky Sall jël na Khalifa Sall faagaagal Macky Sall jël na Karim faagaagal waaye yàlla suñu borom ne ko duma la bàyyee noonu mukk andil ko Ousmane Sonko tegal ko waaye ay magistrat yu ñàkk jom nekk ci réew mi di gis ñu rey doomu Sénégal yi waxuñu dara as doomu tubaab su ndaw

ndax jaam yu mel ne war Sall waratuñoo toog ci réew mi di ko jiite